xaw ndëb de l'actualité xam naa du ñàkk ak Fatou moo ko fas yéene euh, daal di animé li ñuy fas yéene waxtaanee nag Cheikh Omar mooy actualité bi nga xam ne euh, moom moo lëmbee euh, bokk na ci ki nga xam ne rek moo di meurtre Aziz Dabala ak neveu boobee di Wali ki ñu njortees nag ne moo ko def moom Seneweb jot nañu xibaar que ne mi ngi woyoo ci turu Mamadou Lamine Diawo si je me trompe pas mu ngi judd en 1999 ñu ngi ko tegee loxo ca diwaanu li nga xam ne rek moo di jannatu Maxwa mu doon également certainement benn information boo xam ñëw justement ñu étaler ko euh, ci nu mu gën a yaatoo waxtaan également ci euh, polémique bi nga xam ne amoon na euh, ci lettre boobee ñu noonu dañu ko daal di adressé état bu Sénégal doon sàkku ci état bi mu daal di loger yenn ci ay ganam foofee ca King Fahd Palace te ginnaaw gi ñu bañal leen ko moom xalif général des Mourides nag wala porte-parole di sëñ Bass Abdou Khadre jot na daal di génn démb sax teggi tuuma waaye ginnaaw gi dafa mel ni lettre boobee lu am la dinañ ko jeexalee ak wàllum alliance certainement euh, boo xam ne taxawal nañu ko APR mu ngi ci euh, biir waaye également réew mi mu ngi ci biir l'absent nag bi ngi fi gën a noté mooy euh, parti démocratique sénégalais on aura l'occasion justement ñu étaler ko ci nu mu gën yaatu on y va tout droit vers peut la dissolution de l'assemblée bu ko waxee nag certainement ay coalition dinañ juddu ak yu ni mel li mooy ponk yi nga xam ne bu ngeen teewloo dinañu ko yaatal waaye nag li ñu gën a waxtaanee insécurité euh, wàllum faat également dina ci euh, bokk ak actualité bi nga xam ne moo defaree un peu euh, li nga xam ne moo di la chronique Cheikh Omar justement du ñàkk ne ñoo yëgandoo cette information divulguée également par nos confrères de Seneweb li nga xam ne rek moo di li ñu joxe ci xibaar nag mooy le présumé meurtrier di moom Mamadou Lamine Diawo teg nañ ko loxo ca diwaanu Touba ca diwaanu Jannatul Maxwa mu mel ne également la police à fait nag sama travail. oui mais la police euh, sénégalaise encore une fois bravo parce que tey euh, mën nañu wax ni que ñi ñaam ci comme ay enquêteurs. bu le passé toog naa fi ak yow mu ñu waxtaan ci ma ne la euh, crime mënu fi am ñaari fan ñett te duñ ko te duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko enquête bu mu leer. parce que ñoom loolu mooy seen métier. loolu lañ leen jàngal. loolu la xam aussi. parce que ñi nga xam ne dañuy def enquête am nañ ay jumtukaay. lu ci mel ni police scientifique mais aussi ñi nga xam dañuy enquête sax dañuy def sax xaale formation yi xarañ et puis fii en Afrique euh, police sénégalaise elle est moo tax moo taxoon bële passé ma la doon wax xale bu jigéen bi ñu reyoon ci wàllu transfert d'argent malheureusement c'était à Pikine mm-hmm. euh, ci saa si moins de vingt quatre heures jàpp nañ ki ko defoon kon ça veut dire bu fekkee am nañ ay enquêteurs yu mel noonu war nañ leen wóolu mais aussi war nañ leen a dooleel d'abord di féliciter le commissaire Adramé Sarr de la division des investigations criminelles nga xamante ni moom moom mën a liggéey bi ak ay enquêteurs am euh, man xam naa ko personnellement euh, xam naa ko ci fi mu jaar bi mu nekkee département de Pikine avant foofu moo nekkoon commissaire police u Guédiawaye après mu nekk police Pikine mais di wax ni que expérience bi moom ak liggéey bi nga xam ni daf ko sawar parce que c'est pas quelqu'un qui reste moom dafay nekk sur le terrain mais après sax euh, war naa ko sax ba félicité ko parce que loolu bettuma ci moom. mais li ci yéeme rek mooy ñun tey suñ société lii war nañ ci jàng lu bëri. war nañ ci jàng ci d'abord influenceur la xawma ay tiktoker. mel ni ay Colombo wala ay Derrick. déterminer ay scène de crime mel ni ñu nekk ci film. dem sax ba affiché ay photo jàmm. oui mais mieux encore c'est-à-dire enquête boo xam ne mu ngi nekk en cours. waruloo ci sax wax parce que kii enquête am na sax lu mu xam te du ko wax parce que amaana sax su ko waxee dina nga joxe ay piste wala ay dara donc ñu entraver même fonctionnement wu li nga xam ni mooy wàllu enquête bi muy benn mais beneen bi toog di fen di accuser ay nit. gratuitement comme jël ay photo c'est des données personnelles nga jël données personnelles lu nit exposé ko accuser ko de crime odieux def ko un monstre. ñooñu nga jël seen image di leen def chaque jour nga dégg ñu ne la diw la euh, suba ñu ne la sa ndurowaale bi bàyyi seeraas ñooñu amuñu ay mbokk amuñu famille bu faites ça comme ça gratuitement. am na sa ko fi toog c'était un artiste que ne mais waxum dama ne la sax le plus grave sax mooy toog di wax ci loo xam ni dara leeru la ci fekkeewuloo ko mais dëkku toppkaa la ñu nekk mais au pays du toppkaa on aura tout vu. avec notamment des enquêteurs oui. qui ont fini de fair des hypothèses, qui ont révélé des non qui ont fait le portrait euh, de, de, <laughs> de, suspects, qui ont accusé gratuitement des gens comme sax pour man dafa jot sax ñooñ ñëpp. Oui. yoon def liggéeyam ci ñoom ba pare. ñi nga xamante ne jiin lañ leen sax dañ leen war a yóbbu au niveau de la cybercriminalité parce que munoo jël ay données personnelles nit jiin ko raykatu nit. loolu ay image am des ci internet bi nga taqal deram tegoo ko fenn lu dul ci wut ay vue wala yaa xamtee fenn. est-ce xam la wala. maataay la non du loolu c'est dëkk bi ñu nekk. moo mel noonu. Hmm. notre société là elle est malade tey émission bu la neexee tuddee ko notre société elle est malade parce que li ma la wax rek dinaa ko ci indil. notre société elle est malade bëgg a siiw wala voyeurisme wala man maa xam wala man maa fekkee c'est extrêmement grave c'est extrêmement grave je crois que lii jàngat boobu war na ci war na ci nekk et qu'on devrait arrêter toutes personnes yi nga xamante ni mhm. toog nañ sur la place publique pour accuser ay nit waxuma sax ñi ñu accuser porter leen plainte muy benn mais tey le fait que ñoom ñu dem ñu ngi violer secret de l'enquête ah mais beneen bi ñu ngi violer ay droit wu jàmbur ay données waaw bu loolu weesoo. Euh, enquête bi def nañ ko ñi ko war a def def nañ ko. man duma enquête balaa nga jàll Faution parce que démb euh, dañu gis bi mbir mi amee ci les réseaux sociaux Facebook la xaw bu fekkee Dominique mën nga ma indil cette image là c'est important ñu gis un commentaire ne euh, excuse de t'avoir tué par erreur est-ce que loolu peut-être ñàkk a xam la wala ñoom dañu jàpp ne mbir mi mbirum folo la mbirum ut bës et cetera et tout. waaw mais man bi ma gisee j'ai vu le commentaire mais xam nga sax parfois li nga gis sax. est-ce que c'est authentique parce que nit mën na jël sax infographe monter benn tur bind. mais euh, les gens se permettent d'être sur internet d'écrire n'importe quoi man mii fan yi am na ñu ma doon saaga biñ ma saaga waaye bind ma sax ci sama numéro WhatsApp saaga ma gratuitement parce que boo kook ñoom xalaat walla euh, groupe de presse bi nga nekkoon bàyyi nga fa ay nit di la saaga. mais tey su fekkoon dama leen topp dem cybercriminalité ñu localiser leen xam fu ñu féete. je te rappelle y a un jeune sénégalais qui s'appelle Saër Kébé à cause d'un commentaire sur Facebook il a fait quatre ans en prison. apologie terrorisme lañ ko toppee woon je mais après dañ ko bàyyi acquitté parce que bind na bi nga xamante ni affaire Charlie Hebdo yi am na mu bind ne leen gisagu leen dara yoon ngeen attaqué sur la base de ce petit commentaire et aujourd'hui dañu nekk ci jamono boo xamante dara du umpe téléphone bi nga yore loo ci bind dafa am adresse IP ordinateur bi ngay connecté dafa am adresse IP loo def mën nañ ko localiser loo bind donc su li ngay bind xamoo ko li ngay wax xamoo ko te d'abord responsabilité pénale y a une responsabilité pénale parce que tey bind na ko mais sur cette base mënoon nañ dem ñu waru ko jàpp ko naka l'aveu et la mère des preuves. ça veut dire ñu considérer yow yaa bind lii comme yow yaa ko bind yaa ko avoué tey fan la jëm. du dugal boppam dugal ay mbokkam est-ce que da koy bind parce que nga bëgg ñu bësal la j'aime wala da nga bëgg ñu ñu commentaire la wala da nga bëgg a yaa ngi def ay gestes yoo xamante ni les gens moo tax il faut ñu am éducation boo xamante ni mhm. dinañ expliquer nit ñi ñu comprendre lan mooy enjeu yi. Sénégal rek information par exemple justement. oui mais former les par rapport aux nouvelles techniques de l'information. justement xam nga internet. comme dañu ko wasaare rek. waaw moo tax man maanaam internet balaa nga ciy dugg da ngay nite. internet balaa nga ciy dugg da ngay nite. tey quand tu regardes sur TikTok tu comprends que nous notre société ay fàcc yi. am na ñoo xam ne bu ñu solee yére seen aana njaay tàppe ñuy wëndeelu xalaatul ni dina am ay doom ëllëg xalaatul ni war na nekk jigéen bu war a sëy ëllëg mel ni ñuy jaayu ak ak kàddu yu ñaaw ak cagatu en ligne bind photo def si maa ngi dëkk bërëb sàngam woo ma téléphone. comme ça sur internet y a tout il faudra qu'on régule ça nag. Euh, mais sa jàpp dina euh, dina neex euh, réguler. comme oui mais par exemple priorité lépp comment comment on l'appelle ñi ñi moom wàllum réseaux sociaux yi noonu. oui mais xam nga tey on a compris qu'il y a eu des dérives sur les réseaux sociaux. c'est parce que s'il y a dérive sur les réseaux sociaux c'est parce que il y a une société qui est malade. Mhm. Euh, am na ñoo am na benn TikTok boo gis ndaw si da doon xaru en direct quoi si def ko live def live quoi pour xaru nit ñi di ko seetaan quoi. est-ce que ko mooy ëpp sax voilà donc tey.